jërë ngeen jëfa mujj naa doon madame Mbaye moom Fatou Mbacké dégg na alxayri ni ki dibéer gi ñu passé ca la ko doon maye moom Fatou Mbacké gis nañoo xarita mbokk jege ñaalek am di jàmb ñëpp ñëw wuy si ko ci bësam ba mu sañse ay sañse yu rafet tubaar fakkal la macha allah taaral bësam ba mu rafet loola ndax olof moo ne bësa bësa bësu jàmbur du bës mën nañ ne moom Fatou Mbacké coful bësam ba waaye liy ñëw ci soow mi moo di doomi faatu Mbacké bi nga xamee ni doon nañu fi wax ni Eumeudi Badiane bu Wally Ballago Seck mooy baaya te moom Eumeudi mu weddi woon loolu xale ba lañu ñu ne ko fàng ci kanamu écran yi internet bi foo toll gis xale bi journaliste yeeg naka doon nañu ko interviewé moom xale ba bëgguñu woon lu dul mu wax ci ki nga xam ni moom la ñu wax ni mooy baayam di Eumeudi Badiane xale ba mujj na caa wax ndax xale bi ba ko journaliste bi laajee ne ko lan nga wax ci sa baay bu bees bi xale ba lam ca tontu Eumeudi Badiane mooy sama sa Badiane Sakura Wali addu yooyu xale bi yëkkati naka ñu bari ci biir réew mi ñi koy ñaawlu ndax nee nañu moom xale la xale moomin la xale xamul dara journaliste ba naka moom la ñëpp di joxoñ baaraamu tuuma ba futu moo di maam Ndiaye Savon kaddu yi nga xamante ni yëkkati na ko ba mu seetaanee vidéo bi ni ndeysaan xale bi kii li mu wax nii ku ko gis rek tey sa xol dafay tooy sa àdduna day tukki maam Ndiaye Savon mel ni ñuy ku mer ba futu loolu jëmale ko ca journaliste ba doon laaj ndax am na yenn question yoo xamante ni kenn du ko laaj kii xale la xamul dara waaye lu jur njàkk moom Fatou Mbacké moom mooy njàkk moom mi jël doomam ne ko fàng ci kanamu écran bi adduna yëpp di ko gis mu bàyyi ñu dékk ko micro yeneen ka feelu maam Ndiaye Savon ca mer ba futu ba ñaari salaamaaleykum yi Adamo boss de négri moom itamit mer ba futtu la def jël ay ma méngale ko ko woyi Baye Mass bi ne ay journalistes yu faux ay journalistes yu jàngul journalistes yu xamul dara professionnalisme zéro di ay kàddub Adamo boss des négri ni jël ab xale bu ndaw di ko interviewé bëgg rek ma wax ci waxi papaam te ku ne xam na waxi papaam ak yaayam jooju coow bi nga xamante ni juróon na ko fi te Mass dafa nekk loo xamante ni lu garaaw la dafay des du deñ mukk te journaliste boo demee naka ba ñëw ci xew jàmbur di mariage yaayu xale bi ñu takk ci farata yàlla mu sunna Muhammad boo ñëwee ci bés ba doo ko laaj ci bés bi contentement wala mbégte bi nga xamante ne am na ko ci bés bi waaye defoo ko wala yemoo ci loolu lu dul jël doomam teg ko ci kanamu caméra di ko poser sa ay question yu waaye defoo leen ko di ko laaj lu passé di interviewé xale di ko dugal foo xamante ne ku ne xam na xale moomin te xale xamul dara lu ko neex rek lay wax li ngeen ci bëggoon am ngeen ko ci bàyyi leen bëgg bës ndax jarul yenn yi te gën a metti ci wax ji mooy ba ngeen demee da ngeen dagg waxi xale bi di ko dugalaat bi ngeen jël xale bi ne ko fa fàng Amady Badiane mi nga xamante yoonam nekkul ci mariage ngeen jël ko boolewaale ko ci seeni yëg li ngeen di def nii naka jekkut rafetul ci image bu Sénégal ma teg ko fi daw wuteli mbay lambar lambar ma lambar lambari woonu wuti dabasey mbay ku ca laaj dabasey yi ne ko yow dabasey lan moo tax gisuñu la ci diine na gala bi Aïda Samb moom la organisé woon lan moo tax gisuñu la fa dafa di rek des fois du fépp ngay mën a dem du ci yëpp ngay mën a teew te spectacle nag dafa laaj temps si la fees fa dell te doo leen wayal kon dafay jaadu rek nga bàyyi nit ki mu wayal ay soppeem ba ay soppeem kontaan te ba ma koy seetaan moom Aida Samb sama rakk fa ma toog dama kontaan sama xol bi dafa sedd guy ndax Aida ci ay mën a wayam rek te li gën a jafe ci artiste la am mooy nga way ba pare kenn du dugalaat sa voix di ko defar wala di ko seggata Aida voix bi dafa naturel su ma koy xool damay gis sama bopp ci moom di ay kaddu pot daba sëy ni Aida Samb way li way li la ndaanaan la te keroog ca bësam ba ba ma fa gisee Wally Ballago Seck ak yeneen artistes yi sama xol xol bi dafa gën a sedd ndax ñun artistes yi ñun ñëpp benn la fu benn artiste taxaw rek taxawal na fa yeneen artistes yi aar bi ñoo ko bokk ndax olof moo ne benn nen bu ko mbooloo bokk kenn du ko baxal kenn du ko omelette dañu koy may ne sa ku yor sa mburu daal di jàpp muy ay kàttu ba daba sëy série Mor Mané que dëkk sénégalais yi album bu nar a neex album bu nar a dàq album bu Wally ak album bu Papa Diouf Sidi Diop giiñal na sénégalais yi ni albumam bii di ñëw moo nar a dàq album yi taxawalu ci biir réew mi yëpp fam moo di ci ay wayu neex ak album mathématique liggéey ak professionnalisme la si di ay waxam nii nag c'est normal la su ma ñëwee ma génnee album bu dàq ba su ak bu Papa Diouf ndax ñooñu sama ay grand la kon nag man mi di seen rak su ma ñëwee damaa war a def plus ndax bërki déemoo njaay rek gis nañu album Aïda Samb ni mu def kon man Sidi Diop bu ma ñëwee rek dama war a génnee leneen lu gën a neex loo xamante ni sénégalais yi dañu koy bëgg te xam naa samay soppe ak samay am di jàmm di ma xaar yàggatul dara rek ci ay fan yu néewoo di ngeen gis album bu boole ko ci Mia Guissé moo di Habib Ndour Habib ci Youssou ma moom nee na dafa bëgg Mia Guissé Mia Guissé daf koo neexal lool ndax Mia jàmbaar la joo xamante ni boo ko xoolee ci ay gëtam da ngay xam ni femme bu brave la ku bari jom boo koy xooli tamit da ngay xam ni kii dafa souffrir lu yàgg te ba tey Mia Guissé boo koy xool ci ay bëtam da ngay xam ni kii am naa ba ragal goo xamante ni mi ngi ci ay bëtam ndax da nga koy gis des fois dafay forcer di def dara mais dangay xam ni kii dafa xaw a ragal wala am na lu muy sóoraal ndax danga koy xool ci yaram ak jaar-jaar yaram ndax foo ko gis mu toog di wax rek da nga koy gis ay gëtam dafay taa mu lay leer ne nag kii am na benn souffrance boo xamante ni mi ngi ko doon dund te ba tey ci sama gis-gis nag kii di Mia Guissé dafa amaguloon nit koo xamante ni rek dina ko jege pour mu mën a génnee li nga xamante ni moom moo nekk ci moom te man nag dama ko bëgg te xam naa ni sénégalais yu bari nag dañu ko yërëm ñeewantal ko ndax jaar-jaar yi nga xamante ni am na ko te it ku jàmbaare la moo tax mu yegsi fii mu yegsi tey te morceau idée bi nga xamante ni Mia Guissé génnee na ko man ba ma koy déglu xaw ma ay jàpp Aby Ndour rakk Youssou jigéen ci famille Ndour foofee laay des ba léegi kañu gisaat ci ab vidéo moo di Bouba Ndour Bouba Ndour moom ak personnel bu télévision Futur Média ñoom la ñu gis ñu sekk ab bool boo xamante ni ceebu a ci nekk moom Bouba Ndour modeste à part la ñu gis ci xar kanamam mu bokk ak ay frère ak ay sëram di lekkandoo di kafandoo di reetaanandoo donte moom mooy seen patron di directeur programme bu télévision Futur Média waaye Bouba Ndour dafa àndandoo ko frère am yooyu ak sëram yi bokkandoo benn réseau social bi jamono ji nag sénégalais yu bari di ko rafetlu naan Bouba Ndour nii rek exemple la war a nekk ci patron yu bari dox seen diggante ak seen ay employé moom Bouba Ndour naka noonee rek la ko defee xaritoo góor ak jigéen amul ka dëggal kàddu yooyu moo di soxna Sa Thiès ndax moom ci ay kàddoom mi ngi ñuy xamal nan la xamante ak Sa Thiès ndax kii di Sa Thiès sama xarit la woon sama mère ami la woon maak moom ca début ba ndorteel ga lool la ñu woote woon waaye ba ñu demee ba ca biir ba yàlla di def li a sama diggante ak moom sëy daal di taxaw kon xaritoo góor ak jigéen mën nañu jàpp ne am naam amul waaye sama diggante ak Sa foofu la commencé ay xarit la ñu woote woon daal waaye gis ngeen li yàlla di def waaye sama jëkkër jii di Sa Thiès féete na ma ci boor yëpp mat na ma nday mat na ma baay te moom Sa Thiès yërëm na ma yiir na ma jàppale na ma ndax bu ma fàttalikoo am na benn bés boo xamante ne feebar sonaloon na ma lool waaye moom Sa Thiès musul daw mbaa mu dertu gannaaw taxaw ci sama wet accompagné ma ba ma wër pëng la ndax fii jabar feebaree rek dañu leen di jéggi di dem waaye moom Sa sa loolu yëpp fekk ko ci fii la taxaw ànd ak man accompagner ma ci biir feebar bi la feebar bi doon métti métti la mu doon tartar yi bokk na ko ak man dundandoo na ko ak man na ba yàlla di def li gën moo di ma amaatu wër kon moom Sa Thiès sa dinaa ko sëyal ba dee di ko ñaanal ci li nga xamante ni moom lay yëngatu di wàllu làmb yàlla suñu borom defal ko ci ndam ba mu dégg roi des arènes te moom Sa Thiès kàddu yi nga xamante ni moom laa koy dénk mooy bu bëggee raw ay maasam na wéy ci ay ay déglu ni Ibrahima ak Balla Gaye 2 bu leen dégloo rek dina romb ay moroomam te fa mu bëgg yegg dana fa yegg di ay kàddu pëcc soxna pa Sa Thiès moo yëkkati kàddu yooyu jëmale ko ci borom këram di Sa Thiès rakki Balla Gaye 2 doomi du Less jéye ji amaat ca tali Kaffrine ba muy jéye ju métte métte benn oto moo yi daal di fekk ab saret boo xamante ni dafa yaboon ay nit mu daal di jaar seen kaw ba daal di ci fàtt benn doomu aadama te itam ca l'accident boobee ba tey ña ca am ay gaañu gaañu bari nañu lool mel ne l'accident ci biir réew mi ñuy sampoob laaj naka chauffeur yi ñoo dawalatul yoon wala oto yi ñoo baaxul wala yoon ya oto yi di jaar ñoo baaxatul wala borom sareet yi ñoom itamit ñoo war a bàyyi yoon yi oto yi di jaar ñu di fa jaar loolu naka ab laaj boo xamante ne ñi ngi koy samp di ko laaj léegi kenn la tëgguñu ki ci maaga firiñu ci foofee laay jaaree di tàggatoo gi yenn tàggatoo bu dul tàggoo tey ñaan jàmm ci biir réew mi ak li ko tey waxe yàlla mii borom jàmm ki mu jàmmal nga am jàmm yàlla nañu yàlla boole defal jàmm jërë ngeen jëf